قدر ما قدر jërë ngeen jef mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee ñoo ngi fii ci Daaru Salaam waaye ñoo ngi fii ci buntu barabu maam Cheikh Anta Mbacke di doonoon jàmbaar joo xamante ni tey jii képp koo xamante ni yaa ngi fii ci Daaru Salaam rek gis nga taxaway bu am solo bi nga xamanteni tay ji meun nañ ne njabotuk mam Cheikh Anta gi tay taxaw nañ ko ci magal bi nga xamanteni moy magaluk mam Cheikh Anta mbake borom daru salam dem gis ne tay ji kenn ku nek bo ñëwee fi ci bi dekk bi rek sa xol dina seetlu baax baaxa baax baax ci taxaway bi nga xamanteni njabot gi am nañ ko ci magal bi nga xamanteni ñu koy fataliku moy jambar yi nga xamanteni moy jambar l'islam je di mam Cheikh Anta muy delu ci Serigne Touba fi ci bi réew mi fii ci diwanu Touba waye ñu ngi fii ci nak batay ci fi ci bir barab bi buntu barab bi te sant fekk mbokk taalibe mu mel ni ku ziare bay waaje dellu macha allah ñu ñëw fii euh, taseeg yow ci barab bi màggal gi tey doonoon màggal goo xamante ne kenn ku nekk jullit bu nekk murit bu nekk jaadu na nga ñëw dundal si li nga xamante ni mooy màggal gii di màggaluk euh, Serigne euh, Maam Cheikh Anta te mu ci màggal Serigne Touba ñibbiseem ci lii nga xamante ni mooy tukki bi ngeen ñëw ziyaare ñëw bàyyi ko fu sori ci réew mi naka ngeen dundee li nga xamante ni mooy màggal. waaw alhamdulilah doole sant yàlla rek di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa ci lii nga xam ne moom màggal gi def te dëkk bii mu sanc ko rabaate la ko Maam Cheikh Anta rakkam ñu bokk benn waajur wu góor. wax dëgg yàlla dañuy rafet bu baax euh, taxawaay bi ak liggéey bi mu ngi ci doole sant yàlla bu baax dal xam na dañuy ñëwoon doon siyaare si rek. ñu leen di siyaare baax baax di wax rek alhamdulilah rabbil alamin maa ngi moom am na tawfeex lool moom sax anta bis bi jomm ko ndax liggéey na sëñ Tuubaa si an Bamba liggéey boo xam si ne ñëpp xam naa njàmbaaram sëñ Tuubaa bi mu ñu bisee fii la ñëw ñu daaru salaam ah képp ku ne bëgg jàmm nag war nga ñëw tawfeex na tax goo xam ne mënuñu ko wax suusadaan ñëpp di ci teew ndax màggalu goo xam si ne ñun ñëpp murid bu ne rek nga ci teew ndaxte feer la ci ñun murid yi ñu ngi saar ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sant nañ lool ni ñu ko teewee yàlla ko teewee nag ne men tropeti teewee seen taxawaay bi yàlla na ko yàlla jëmale kanam ci dara yi suuf seex maam seex Anta Mbacke jërëjëf mel ni màggal gi dellu si Serigne Touba la fii ci biir dëkk bi ana tey waxtu wi nii maanaam buñ fi teewee doon ay murid xel yi dina yëg lu bari ci jamono ji war naa lu bari ndax luy seexi wala boo xam ne sëñ Touba bu demuloon ci géej gi defe naa lii duñ ko am kon nag war nañ koo sant yàlla sant sant ko sëñ Touba bu baa sant ko maam Cheikh Anta mi nga xam ne moom lii lépp ab cant la ko sant boobu ñun ñëpp dañ cee war a sant ba doole boo ko si sant ku fi ñëw rek war ci di santaat rek fi ñu jógee daal li am solo mooy liggéey sëñ Touba moom day jàppewu ko woon jàppewul sëñ Touba mbokk mais tey lii mu am wane na taalibe rek moo wóor liggéey Sëñ Tuubaa rek moo ci bëgg nag ak liñ ciy ñaan mooy ñun ñii suñu bopp ñu xam ne alal Sëñ nekk ak Sëñ Tuubaa rek mu wóor ak liggéey Sëñ Tuubaa di ci yëg nag loo xam ne daal mënuñu ko wax ndax mbëkk ak kontaan ndax euh, ñëw fi du du du loo xam ne da da da suñu borom dana ci dimbale rek nga ñëw fi suñu borom dana dimbale nga ñëw fi ñu sant bu baax wax ji daal mën a wóor rek mais daal sant daal ak ngërëm rek lañ ciy def santaat Sëñ Tuubaa bu baax di santaat jëmm ji ñu naan suñu borom yokk ay leeram yokk ay tawfeexam di mag Sëñ Tuubaa loolu ci bu waaw waaw waaw xam nga alhamdulilah xam nga loolu léegi li muy firnde rek mooy li ma waxoon mooy mooy Sëñ Tuubaa mbiram moo amul tànk ginnaaw moom léppam day dem ci kanam rek léppam ci kanam la jëm ndax lii lii nii moom mii tëdd fii da koo liggéey kon tey war naa mun am bésu mel nii li ma wax rek day gën a saa su day gën day gën di jëm kaw nit ñi tey li am fii moom mel ni màggal Tuubaa rek. lii ñu gis fii tey daa mel ni màggalum Sëñ Tuubaa mu taxawaat mooy li ma wax sànq mooy liggéey Sëñ Tuubaa rek a wóor lu la waaye mën wax ci kaw suuf ànd ak Sëñ Tuubaa te léegi moo moo amab taalibe waaw li ma wax sànq rek wax ji laa mënoon mbégte daal lañ ci am di ñaan daal Sëñ Tuubaa yokk ay leeram euh, suñ borom yokk ay leeram ci barke Sëñ Tuubaa lépp nga gën a jàppal dama yëg xanaa xol bu sedd xam nga dem ziyaare njabootu Seex Bàmba dafa sedd si xol no mais soo génnee nga xamante li nga yenu woon dafa yenneeku dafa dañ tawfeex daal laa ci gis avant avancement ak yokkute màggal gi neex na trop ça s'est bien dara manqué wul suba ba léegi maa ngi fii fee laa yendu kër Kabaro mais ça s'est bien passé lekk yëpp doy na macha allah. mbégte rek mbégte moo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax maam su fexe ante borom dërëm ak ngërëm yëpp da koo bëgg xol yëpp da koo bëgg suba ba léegi ñoo ngi rayante boo xamante ñoo bëgg a tàllal suñu loxo ñaan ko. moo rawale ñu rawale suñu njaboot te lépp lu fi doomu aadama ñaan rek yal na ko yàlla saabaloon moom yal na ko maam suñu suñu loxo ak suñu yaakaar ak suñu njaboot waaw nekk nag nit nga bis boo xamante ne dañ koy fàttali ci seewul Xaadim bi ci géej gi nga ñëw màggal ci fekke woo loolu waaye xam ne loolu la ñuy màggal bi nga ñëwee sa xel ak sa xol naka nga koy jàngatee loolu rek Cheikh Ahmadou Bamba daa dee ci sa xol ndax Ahmadou Cheikh Ahmadou Bamba moom rek lañ am bu ñu tëddee ci lal yu nooy moom la bu ñu jaaree ci karo moom la bu ñuy ventilateur bi upp moom la lépp moom la kon nag képp kuñ koy fàttali rek war na jullit bu nekk dem fa rek def fa saw ñàkk loo mën nga def fa ak loo mën bu ne nga def na Ahmadou lañ am lu mu am rek moo ñu ko may sant yàlla rek di julli ci yàlla di sant yéen a ngi ñaan Serigne Touba ak Cheikh yi ba yàlla nañ fi yàgg si wér. di ñaan maam Seex Anta noo ngi ñaan yal na nu yàlla taas ci barkeem di sant yàlla bu baax nag nu yàlla boole nu ci yoonu kër sëñ Touba nu koy lëggéeyal noo ngi sant bu baax yal na nu yàlla defal jàmm defal nu xéewal di ñaan sëñ Muntaxa yàgg fi lool te ànd ak wér ak taalu yi ak dongo yi ak yéen ñi koy liggéey yal na nu yàlla taxawu sàmm leen yiir leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga nekkee ci biir barab bi di ñaan di siyaare lan sama xol sedd rek ñaanal sama njabot fan mu gudd wànd ko wër di ñaanal njabot jullit yépp fan mu gudd wànd ko wër ñu yàgg liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh Ibra ci yoonu Serigne Touba di ñaan sëñ muntaka mi nak yalla na fi yàgg te wër ak mbolé mu jullit am contente lool di sante yalla di sante yonent bi di jublu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di sante maam borom Touba di sante borom barab bi tedd bi ñu taxa a Touba ba ñëw fi di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala di ko magal ba faw rek ba bañ leen di fekk ci suñu borom waaw. dëgg la maam boroom tubaa ak maam Cheikh Anta ku ne dégg na ko kon bu maam Cheikh Anta amee bis bu toll nii rek. xamne rakam magam du bax du tedde ja mo àndaloon moo ko waral ñun murit yépp ñu koy and di ko bég di ko def mbégtaay ci ñun mu nekk suñu bég nekk suñu bisu fex fexte ñun yoonu murit di ñaan suñu borom bi rek yalla fayal ñu leen taas ñu ci seen barke te yeexal waaw jërëjëf yéen يوم الجزاء